صلاة الذي yi jaaxal yi jeex na ci lépp lu jëm ci matériel boulangerie fii ci dëkk bu sell bii di Touba ak li ko wër waaw ndax Lo et dikk na andi leen bépp jumtuwaay bi jëm ci wàllum boulangerie yi waaw am nañu ay four complet ay batterie ay façonneuse laminoir ak i série bépp matériel nag dañ ko am bagage yu am ko wala te li ci gën a neex mooy dañ la koy jaay livré la ko ba noppi monteel la ko ci anam gu mucc ay Lou et mi nekk fii ci Madiana 2 avare Arosoboka mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñu numéro téléphone 77 648 61 97 wala nga woote ci 76 10 99 78 011 82 60 76 880 41 98 mbokk yi jaaxle dafa jeex tàkk fii ci dëkk bu sell bi di Touba. ci bépp matériel bu jëm ci boulangerie ak yi ci aju. ala man bi muksimal amni wal basar